dal di nag jàmm ci ma metti point com comme à chaque fois ñu ñëw ak yéen ci seen revue de l' actualité nekk li nga xam ni moom moo gën a fës ci xibaar yi fi jot a xew li ci gën a fës nag ci semaine bi dégg ngeen ci Ndeye Fatima Dione nekkoon Miss Sénégal 2020 moom nag coow lu bëri topp na ko ñu ci dégg li nga xam ni moom mooy wàllum ëmb ba dégg si sax li nga xam ni moom mooy viol loolu dinañ ko gën a yaatal ci biir seen revue de l' actualité ki nga xam ni moom mooy rappeur bi di Simon ñu mujj ko bàyyi mu daal di ñibbi këram ginnaaw ay fële nga xamni mom moy prison loolu aussi dinañ ko yaatal euh, ci biir seen revue de l'actualité euh, suñ ci toftalee yeneen xibaar yi nga xamni ne xew na fi euh, mu doon seen revue de presse ngeen koy am ci biir seen site d'information limametti point com peur bi di Simon ci moom la ñuy tàmbalee ki nga xam ne nag euh, moom mooy euh, activiste bi la xam ngeen ni yoon da koo tegoon loxo jamono yi yëpp li ko waraloon nag euh, moom mooy trafic de de passeport diplomatique ki nga xam ne nag moom mooy rappeur bi moom jàppandoo woon nañ ko ki nga xam ni moom mooy kilifa jamono yi nag ki nga xam ni moom mooy avocat di ñëw wax ci état de santé Simon wax ni lii di état de santé ma dafa sooxe loolu daal di ko jox kii di juge bi mu xool ko mujjee may liberté provisoire ki nga xam ni euh, moom mooy activiste bi lee liñ ci mën a xam kii di Simon bàyyi nañ ko mu daal di ñibbi këram li waral lool nag euh, moom mooy santé boo xam ni dafa daal di sooxe lool. ñu daal di wax ci leneen Baba Maal di artiste chanteur fi nga xam ni moom mooy Sénégal moom nag ci semaine bi yëpp ñu ngi doon dégg ay rumeur yu wax ni dafa daal di génn àdduna rumeur yooyu nag ki nga xam ni moom mooy manager am daal di na koy weddi ba mu set wecc moom daal di nay ñëwaat ci loolu noonu wax ni kii di woykat bile mi ngi ci jàmm ak salaam dara jotu ko mi ngi woon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay sympathisants ak ñi ko bëgg ñu daal di ànd ak dal xam ni seen woykat bile nak nek lo xamni yag nañ ko diko gis fi nga xamni mom moy senegal eh, di jek jek wax nit dafa daldi genn aduna eh, te lolou leel yep eh, dara amu ci li nga xamni nak mom lañ wax ci mbaba mal ki di manageram wax na ni dara musse am ki di chanteur bi le mi ngi ci jam ak salam

ni moom mooy sida toll nañ ci deux cent personnes maanaam ñu bëri ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci wàllu woowule amuñu li nga xam ni moom mooy carte sanitaire ci biir deux cent personnes yooyu nag am na ci ñoo xam ni ñi ngi def seen liggéey bile ba léegi nag loolu nag nekk loo xam ne lu doy waar la nga xam ni lu suñu ay naataango yu waa l'observateur daal di def étude boobu nag ñi ngi ko amal fi nga xam ni moom mooy Sénégal ci milieu bi nga xam ni moom mooy milieu prostitution jigéen la ki nga xam ne nag moom mooy eh, Marie Toudiop ñu gën ko xam ci turu eh, Marichou ak kii di Khadim Sène ñu gën ko xam ci turu Billy eh, jamono ji coow bari daal dina leen a topp li ko waral nag moom mooy dañuy wax ni kii di Khadim Sène dafa daal di ëmbal Marichou loolu nekk lu doy waar loo xam ni jamono yi yëpp ñu ngi koy waxtaanee ñi nga xam ni nag ñoom ñooy ñaari principal concerné yi ñoom ñaar ñëpp def nañ demandi wax ni loolu le amul amna na wala amul ñi ngi koy waxtaanee nag bu baax fi nga xam ni moom réseau réseaux sociaux yi. ñu jeexalee ak xibaar bi nga xam ni semaine bi yëpp ñu bëri euh, ñi ngi koy waxtaanee daanaka euh, moom sax la ñu gën a waxtaanee di histoire bi nga xam ne moom mooy histoire Miss Sénégal di Ndeye Fatima na Miss Sénégal 2020 euh, bile ay révélation la ñëw daal di def kii di Miss bile xam ngeen ni semaine bële yëpp ñi ngi ko doon defal lii di kett ba ubbiloon ko kañoto li ko waral nag moom mooy sonn goo xam ni waxoon na ni sonn na ko ndax ñi nga xam ni ñoom ñoo organisé Miss Sénégal waaye lijjantee euh, tuñ ko ba jàngam sax euh, mujj ci yàqu ginnaaw loolu nag ki nga xam ni moom mooy yaayam daal di génn daal di def sorti sorti boobu nag moom moo indi li nga xam ni euh, moom mooy wax ji kii di yaayam daal di wax ni kii di Ndeye Fatima Jonn dafa daal di am doom maanaam dafa nekkoon en état de sa jamono ji xale bi juddu na ba am cinq mois wante nag li war li sabab doom jooju ne moom mooy viol la daal di wax ni moom lañ def doomam ji Fatima John moom mi nga xam ni nag moom mooy principal concerné bi di ndeyu mbili ji ndey Fatima John ñëwaat na ci wax ji wax na ni ne ba ñu ko yóbboo ci benn hôtel bu nekk jam Diamniadio ci benn événement boo xam ne doon nañ ko fa amal ci la mbir yi daal di xewee moom nag li mu mën a xam moom mooy violé nañ ko mais munu ci indi benn leeral ndax fàttalikuwu ci dara loolu nag nekk lu doy waar loo xam ni xew na fi ginnaaw si loolu nag ki nga xam ni moom moo woon mbiri eh, di organisatrice Miss Sénégal eh, di Amina Badiane eh, dal di génn wax ci mbir mi waaye nag dafa mel ni kàddoom yile la neexul dara ñi di sénégalais yi moom li mu daal di wax dafa ni ku ñu fi violé yow la neex kàddu yooyu nag daal di heurté bu baax ñi nga xam ni ñoom ñooy sénégalais jamono ji nag ki nga xam ni moom mooy procureur daal di nay auto saisir wax ni ki nga xam ni moom mooy Amina moomule dafa daal di jàpp jàppale ñi nga xam ni ñoom ñooy def lii di violo moom nag fu laalul benn yoon waxi Miss Sénégal bile ay sponsor sax yoo xam ni bokkoon nañ ci concours bile commencé di retiré wu benn par benn li ko waral nag moom mooy dañoo daal di nakarlu ñaawlu kàddu yi nga xam ni Amina Badiane yëkkati na ko jëmale ko ci li dal Miss Sénégal 2020 bi di ndey Ndeye Fatima point limametti.com nag dinañ leen toppal mbir moom ngir xam nan la Ndeye Fatima di mujjee ak waa Miss Sénégal ñii di organisateurs yi ndax dañuy dissoudre lii euh, comité d'organisation ndax euh, yoon daf ci am li nga xamni mom moy mooy kàddu loolu euh, dinañ len ko indil ci biir limametti voilà mbok internet yi loolu lañ indi lono tay ci sen revue de l'actualité nekkoon li nga xamni mom mo gënon gënoon fës ci xibaara yi fi jot xew di len wax nak comme toujours ngeen continuer di top sen site d'information limametti point com ngir dara bañ len a raw di len jox dig daje benen yoon ak yeneen xibaara